dal leen ak jàmm seen syndicalisme ba hebdo dikk na dikkaat na ak beneen waxat woo xamante ni ci lu ama am solo la naka lu def waxulu ay di njàmbat la mu fa def ak la mu fa wax ci réewum Sénégal naka daanaka moom la ñëpp di fàttaliku di jëfam ju rafet ji nga xamante ni jot na ko fee bàyyi kookee mooy naka Madia Diop un syndicaliste toujours vivant Madia Diop naka ba saa si dembe moo ngi dund gannaaw naka fukki boo xamante ni ci dëdd na àdduna naka jàpp leen naka syndicalisme humanisme ak politique naka jàpp bi xëy na see indi ab xët bu yaatoo yaatoo dundam ak jaar-jaaram ak la mu jot a def ci góor góogee naka moom naka yéenekaay xëy fësee ni ji naka jàppaleen naka lan moo des naka ci wàllum Sénégal diggante bés adoption ak nami refus d'aller au front yéenekaay naka ana a bi ñu génn naka gannaaw naka fukki at ak ñeent yoo si déddu na àdduna yéenekaay bi naka indi si lu yaatoo yaatu naka ci xalimaab maka Mouhamadou Ndiaye naka dikkaat na ci engagement politique ak syndicalisme nga xamante si moom la ñu xàmmee Madia Diop Madia Diop la prouesse d'un syncrétisme évident yéenekaay bi naka xëy na si taxxan ñi lu bëree bëri naka syndicalisme hebdo bango ci jamono joojeen moom yéenekaay bi naka jàpp si jamono ji yi lu ñu mel naka moo tax naka ci digital ak marche protestation ni bi naka taskatu xibaar yi naka daanaka joxante nañ loxo ngir rek a fexe ba libéré Pape Alé Niang ab xët wu yaatu yaatu nag la suñu naataango bi dal dee bind naka jëmale ci wàllu woowee seen di syndicalisme hebdo baa ngoog naka dikk na disponible ci mbooleem distributeur te cent francs dong lay jar